am na loo xam ne moo ko soxee te Sénégal euh, c'est un pays de démocratie yàgg na am ay revendications yàgg na am ay voilà nit ñi di génn di wax leen naqar yi dellu seen kër xam nga ñun li ñuy def ñun ñii mooy la politique qui vient du mot politique essence bi mooy gestion de la cité li nga bëgg gérer doo ko yàq parce que da ne nit ñi jox ma seen kàddu jox seen seen baat seen légitimité ma gérer leen fi ñu dëkk waaw naka nga bëgg a gérer yow fi ma dëkk nga bëgg ko yàq finalement ce n'est plus de la politique c'est autre chose kan moo yàq loolu est-ce que euh, bien vrai que même su dee Ousmane Sonko il a euh, appelé à la jeunesse pour ñu toog il a pas demandé à, quand à ce que nit ñi yàq alors yàq bi da nga koy xool c'est très simple parce que man par exemple AFP la bokk mm -hmm. notre siège a été attaqué hier et brûlé mm-hmm. j'ai montré les, les photos ah lakk ñëw taal ko mu tàkk yàq ay groupe électrogène mais ñi koy def boo boobu ñooñu bokkuñu ci nguur gi parce que man Benno Bokk Yaakaar laa bokk c'est-à-dire ce de dire que ñi ñëw taal ñun suñu siège ñoo ñun ñoo bokk coalition amul sens ah cest à il faut que wax ji dañ koy teg fi mu nekkee est-ce que tey ñi nga xam ne ñoo taal bi su Dakar dem dëkk Dakar dem dëkk ki ko géré il est de la coalition Benno Bokk Yaakaar il est de l'État est-ce que ñun on a intérêt à taal li nga xam ne ñun ñoo ko indi pour sénégalais yi non non non non cest c'est-à-dire je de situer les responsabilités parce que da ngeen ne la faute c'est l'État non parce que état li ko war def na ko état depuis barke démb dem na dànkaafu parce que dànkaafu c'est quoi c'est la prévention en matière de sécurité ki nga xam ne su génnee indi jéya da ngay fexe ba du génn c'est même d'abord pour sa propre sécurité sax parce que yii nii nii yu bëri mën na xew xam nga ñu ngi wax naan yaramam day méttee ak dafa tayal ak lii mais est-ce que xool ngeen image yi ñu gis ci vidéo bi ni ko Guy Marius Sagna doon xëccee rek loolu rek mën na métti yaram cest à aujourd'hui les forces de défense et de sécurité xam nga mënuñu wax mm-hmm. mais ñun ñëpp on a moi j'ai vu kenn nattaliwuma j'ai vu les images. Mhm. ça mu koy xëcc. mais tamit waaw ñi nga xamante ne ñooy di force de l'ordre ñu ngi doon xëcc pour mu génne ko bu mu tekkee mooy mooy ceinture de sécurité bi. mais xam nga mais xam nga mais xam nga baabu lan moo lan moo dul yoon. pour un pour un homme simple rek waxuma la sax un leader politique. Mhm. alkaati ne la li nga doo ko def yow ñemewoo ko. Adja Assou ko. Assane ñemewoo bés bu nekk ñuy dawal suñu oto alkaati bi ne la seeral da ngay seere par force. su la waxee wàccal wàccal ma xool sa maal da ngay wàcc par force mais est-ce que dañu war a indi une nouvelle génération wala un nouveau type de sénégalais boo xam ne faalewul yoon faalewul police faalewul gendarmerie faalewul préfet c'est ça les véritables problèmes parce que tey ku ci nekk sañ nga wax lu la yi parce que nag kenn newul ne dëkk bi tout va bien wala kenn du ko fi waxee ça n'existe pas mais waxe ko ci forme yi tey boo jëlee sa bu la convoqué nga war a dem police wala feneen foo war a mën a dem war nga mën a dem tranquillement parce que tamit dem bi ngay dem tranquillement day tax yeneen citoyens yi mën a dem tranquillement démb ñaata nit ñoo bëggoon dem hôpital mënuñu yegg ñaata nit ñoo waroon am soxla bu ñu faj yi mënuñu ko faj combien de gens ont été malades wala ñu waroon leen solité mënuñu dem mais tout ça qui est responsable mais docteur est-ce que tamit responsabilité boobu nekkul ne yéen parce que comment imaginez-vous ngeen convoqué ki nga maanaam barricade foofu nit mënul dem nit mënul dugg ay doomam bu ñu booree dem jàngi école duñ mënuñu génn pour dem jàngi école lu meloo kan kan moo indi situation bi ni mel. xam nga Sénégal dafa am dafa am lu fi bees léegi mooy le projet da dégg ñu naan la projet projet bi de man li ma ci jàng c'est la manipulation mu ci ëpp bokk maanaam dugg ci xelu nit ñi dugal ci loo xam ne musta am xam nga nee na day yóbbu doomam mu jàngi ban heure vidéo bi ñëpp gis nañ ko c'était vers midi 35 ban xale mooy jàngi midi 35. un jour de mercredi où il n'y a de cours censé il a pas de cours dans l'après-midi école yi fi am cours après-midi bëriwul nga ni sa doom mi ngi jàngi te yow école ba ngay jàng wane nañu note boo xam ne nee nañ école bi tey day tëj man de sama doom jàngul dem. mais problème mooy Ousmane Sonko. moom dañ ko war a assiégé. dañ a dañ ko war a tere mu dem dikk wala mu dem. dama la dama la bëgg expliquer c'est-à-dire yéen yéen ngi fi yéen ngi fi woon au mois de mars là les gens ont laissé. nit ñi dugg biir cité kër góor gi man soriwuma foofu fa laa dëkk nit ñi dañu dugg foofu indi fa problème léegi oto yi ñu fa taal kër yi ñu fa yàq imagine nga nit ku bàyyi ordinateur am ak ay yëppum ci otoom ñu xëy taal ko mu tàkk kooku il perd comme ça kan ma ko remboursé est-ce que police dafa war a toogaat di xaar ba lee ba la amoon amaat non et puis ñoom li ñu am si renseignement ñun amuñ ko attention xam xam nga ñun lan la ñu gis la face visible ñun bu ñu tëddee di nalaw xam nga yaa ngi wax sànq ne y a des qui ont été arrêtés comment ils ont qui les a arrêtés quand est-ce qu'on les a arrêtés parce que la police la la sécurité c'est d'abord le renseignement mm-hmm. te renseignement nag du lu ñuy wax ci plateau. mais si tamit jaroon na ñi nga xamante ne mooy leader coalition Yewwi Askan Wi war a organiser conférence de presse siège PRP ñi ngeen ne leader duñ xam nga loolu xam nga lépp lu xam nga semaine bële passé amoon na fi lu mel noonu moom ci boppam mu waroon dem defi point de presse alkaat yi ne ko dee dellu sa kër parce que souvent day am yoo xam ne c'est des facteurs déclenchants xam nga tey mënoo muy taw nga ne da ngay fobeere c'est pas possible c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité hier étaient sur plusieurs foyers de tension en même temps est normal moment boobu ñu ubbiwaat beneen foyer de tension boo xam ne xëy na bu ñu defoon point de presse ba pare leneen mënoon na xewaat on a tous les images sur la VDN ay jeunes di malmener les forces de défense et de sécurité di toj auto gendarme di daaji auto image kenn nettaliwuñu ko sa s'est passé sur la VDN maintenant li ñu war li ñu war a wax les véritables questions xam nga mooy lan tout ça pour ça